Eh, beneen mbir bi eh, beneen mbir bi beneen mbir bi balaa maa ñëw sax ci li Cheikh wax mooy eh, kii di Ahmed Lo lim indi ci téere bi ñi ñaar moo mën a am delluwul ci taqdis delluwul ci tabaqaatul kubra bu Shaaraani ndax wax ji nee na ci Shaaraani la nekk ci tabaqaatul kubra benn mbir moo mën a am moy delu watul ci tabaqatul kubra bu sharani pour xam wax ji fan la tambale ak fan la yam moy ben ñaarel ba xamul li bëgg wax lan la ñaar yoy rek mo meuna nek te ñaar yépp sax la jàpp ne mo meuna a ne moo nekk moo di ne delu wu fa te li tax delu wu fa dina ko wax benen bi moy xamuko ndax bu ko xamone dana xamne dara nekku fi law kushifa law ubida fa lam yukshaf كيف يعبد كيف يعبد يصفونه بما يصفون كي بي انا موتي واجي يصفون آه، الاولياء بما يصفون به ربهم لولا مويلا انا انا مو في لو كشف عن حقيقه الولي لعبد لكن نك لي وني ني ديلو واتو فا موي لي مو جوخ شيخ ني شيخ اكو تعليق لولا تي واخ جي جيتو لا بوك damay wàccee léegi tabaqaatul kubra bu shaaraani pour ngeen xam ne Ahmed Lo waxu fi dara benn day day taqale ci keneen ndax man am naa ñaari tabaa ci tabaxaat yoo xam ne même page yi muy wax nii nekku nekku fa xam naa wax ji fi mu nekk nag waaye wax ji laa leen di wàccil nii ngeen ñu liir ko ndax daf ne law kushifa an xaqiqati lwaliyi la ubida daan ne fa àllaqa tijaani cheikhu tijaan daa di taaliq ca wax jooja ala hadihi alkalima ci li ab ab abbas abul abbas al mursi wax daan ne li ann awsaafahu min awsaafi min awsaafi rabbihi wala yu mel noonu loola mu ci taaliq loola waxi kan la waxi boroom waxi abul abbas al mursi la léegi xaar leen ma wàccee tabaqaat lii ma indi nii mooy tabaqaatul kubra bu ashaaraani juzu saani kii nag ci taxqiq yi gën a baax la bokk fii mu ngi fi wax moom abul abbas al mursi lay tarjamaal buy tarjama nag day indi li ñuy wax ci nit ki lépp e, bi mu ñëwee di ko tarjamaal nag mu indi ay wax man arafa nafsahu arafa rabbahu ab xadis la mu ne loolu e, daana ko firi daana ko firee nangam ak nangam ba ñëw ci ne abul xasan daana wax nangam abul xasan mooy kan mooy sëriñam achadali شاهد لي دانا وحنا لو كشف عن نور المؤمن المؤمن العاصي طبق ما بين السماوات ما بين السماء والارض فما ظنك بنور كذا مونه كان موي واخ ابو العباس المرسي ولا بوك مو جوكو كو واخي ابو الحسن سرينم بوم تي مانتي دون واخ جاغي ني داف وكان يقول دانا واخ موم ابو الحسن الشاذلي ولا طالب بدي ابو العباس المرسي دانا واخ لو كشف عن حقيقة ولي عن حقيقة آه، الولي لعبد لو كشف عن حقيقة الولي لعبد لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته dégg باخ دفنه law kushifa suñu wuññi woon an xaqiqatil waliyi ci dëgg-dëgg waliyu wi maanaam xaqiqa nitu yàlla ki nga xam ne ñu won nit ki nit ki li ko baare ci nit ki ba yéemuwul ci moom mooy bashariyatoom ku nekk boo gisee sëñ Tuuba wala alaaji Malik dangaa jàpp ne booy lekk du lekk wala dangaa jàpp ni moom du naan dangaa jàpp ne moom du dox di doxi soxlaam da ngaa jàpp ne du xiif du mar yooyu yëpp da koy def da day am soxna am ay doom loolu yonent bi sax dafa àgg foofu weesuwul foofu day am soxna am ay doom day mar di xiif di feebar lépp li lay dal lépp da koy dal day wax di ree di kontaan di mer lépp lay def léegi xoolin boobu nag boo ko xoolee da ngay gis ne yàgg moom soreewu waye amna haqiqa bo xamne mo nek ci mom lu mu doon deug deug suñ la ko wonoon dootoo ko def doomu adam mom mom la ubida la ubida go sa dañ ko leral après waye lan motax tax dootoo ko def doomu aadama ne yow ndax dañ la won xaqiqam li anna awsaafahu min awsaafihi mu ne li anna awsaafahu min awsaafihi ndax melokaanu doomu aadama boobu nitu yàlla kooku min awsaaf yi ci melokaanu yàlla la bawoo bawoowul ci melokaanu doomu aadama maanaam li doomu aadama di defati di am ay sentiment di am nangam moom dëggi dëggam du am loolu du am loolu ndax dafay dem ba am jikkoy yàlla lay am amul jikkoy doomu aadama jikkoy yàlla mooy lan mbaax lewet Eh, yooyu yëpp dafay dem ba lépp dafay far ci moom jikkoy doomu aadama bachariya bi al axlaaq bachariya al tabiiya yi nga xam ne dangay am ar am ak mer am ak tàng kenn duma laal nangam ak nangam eh, jaay nit ñi doole yooyu yëpp ay jikkoy doomu aadama la yooyu nitu yàlla ki day dem ba génn ci daf cee génn set wecc wa nuuutahu min nuutihi ay jikkoom ay melokaanam ay jagloom dafa jóge ci jaglo jagle yàlla yàlla moo doot ci moom ay mbiram yàlla ko xala may ko xilaa ci ay jikkoom moom yàlla ci ay melokaanam moom yàlla ni mu ni mu bindoo ni mu baaxee ni mu teddee ni mu tabee eh, ni mu lewetee ni mu mënee jéggale eh, ni léppam yàlla daf ko kii xatta uhibbahu fa ida ahbabtuhu kuntu samaahu alladi yasmau bihi wa basarahu alladi mooy yàlla daf la jàppale jàppale na la ci ay mbir yu bare bare dooli la xam-xam dooli la ak taxaw dooli la ay jikko yu baax dooli la li nekk ci yow ci ay jikkoy doomu aadama yi nga xam ne baaxul yépp mu fexe ba dindi ko ci yow ba mu set wecc gis nga li ann awsaafahu min awsaafihi fan la ko Ahmed loo boole ci commentaire u Cheikhu kon liirul fii moom ñëwul fii ci téere bi ndax téere bi li anna awsaafahu min awsaafi wa nuutahu min nuutihi kii avant cheikh di juddu la fi lii nekkoon kon ñëwul fii nañ wax loolu nañ ci dëppoo wala ñemewu fee ñëw ba noppi daal di jël lii nga xam ne ci wax ji la bokk mu ne seexa ko commentaire loolu mooy waxi lan kon waa ji ci tappale la dëkk maanaam téere bi yépp tappale la waaw li nak Omar bay moñ ci yóbbu de ndax su ya waxon waxam rek ñun ñu yam ci waxam waye comme da dugg ci taq khas ñu ñam fa waye lool lépp neexu ci lool lépp neexul de abul abbas dafa wax ne law kushifa an xaqiqati lwali la ubida bu ñu wuññi won deug deug haqiqa doomu adam haqiqa nitu yàlla bi buñ la ko wonoon buñ ko wonon nit ki la ubida dana ko dana ko da ubida nañ bàyyi non ndax jikkoom yi ci jikko yàlla la bokk fa fa la jóge yàlla ko ko dottil génnee ci moom jikko doomu aadama yi eh, nuxuutahu min nuxuutihi yàllaa ko sotti génnee jikko doomu aadama yi léegi la ubida mooy lan la ubida mooy da koy jaamu wala loolu pour nga xam ko ki indi wax ji ci boppam mooy wax mooy continuer wax ji lépp a takkaloo yéen a ngi koy gis qultu qultu kan la ashaaraani mooy wax ne wa maana la ubida ay la utia la ubida li muy firi mooy lim ci jublu mooy la utia dees na ko topp lu caagi dañ koy jaamoo ko suñ jootu ko nanga mag déedéet kenn du ko jaamu de dañ koy topp ci lépp li wax xaqiqa waliyu bi su ko taalibe bi xamoon lu mooy waliyu bi du ko yónni muy bañ waliyu bi du ko wax dara muy mer wali yooyu du ko nangam ndax dafa xamul nit ki daf koo jàppee doomu aadama maanaam zaahiru nit ki rek la gis wali kii day lekk may lekk muy naan may naan mi mel ne iblis ba mu naan ana xayrun minhu est ce que dafa xam li nekk ci aadama li yàlla def ci aadama ba tax mu war ko su jootal moom xamu ko lan la xool bashariyatu aadama kii ban la mi ngi nii taxaw nii xaw a njool xaw a nangam foofu la xool daal ne maa ko gën waaye su xooloon ne yàlla du wax ne su jootal ko ci bashariyatu googu rek dana xam ne am na lu nekk ci aadama lu nekkul ci moom nitu yàlla ki su la yàlla mayoon xaqiiqaam nga xam ko dootoo ko mooy ci dara xaqiiqa bi yonent bi nag abu bakarin siddiq daf koo xam waa màkka lu tax bi yonent bi jógee israa wal mu wax leen dara mënuñu ko gëm mënuñu ko topp ndax lan bachar bacharun minal bachar benn waay la doomu aadama bu juddoo fii ci Quraysh ñu xam ko mu màgg xëy suba naan ñu nangam nangam ñu koy gëmee kële nag di Abu Bakr Siddiq dafa xam kan mooy yonent bi xaqiqatan moo tax ñu ne yonent ko wax mu ne kon dëgg la limaada ataahu fi fi l qawl lu tax mu topp yonent bi foofu dafa xam xaqiqaam xaqiqa waliyu bi ku ko xam lu mu la wax da nga ko def lu mu la tere danga ko bàyyi ndax xam nga ne am na feneen fu ko nit mbir yi jóge am na lu koy dotti waliyu la waliyu mooy ki nga xam ne yàlla waalaahu moom dafa méngoog yàlla yàlla méngoog moom xataa kuntu samaahu alladi yasmau ba jeex da xam ne kooku bokkul ak yow kon kooku ku yàlla la ay waxam yemul ak waxu doomu aadama kooku kon soo xamoon xaqiqaam da nga ko topp la utia مش لا عبدة عبادة كم نينكو خمي لا أطيع قال تعالى لا تعبد الشيطان أي لا تطيعوه فيما يأمركم به والله أعلم تفسير بيب برم تقدس اندي وكو كون برم تقدس لا لاي ديف لان لاي ديف داي ليرال دغ ولا داي جخاسي دا فا ولا داي لنتل lépp Omar Mbaye ku ko yóbbee nag waaw pour ñu xam ne moom waxu fi dara téere bi nag boo ko toppee lépp nii la falsifié dindi ay wax teggi dara yokk fii wax fee nee lii nee na laa rek euh, lii ma indi nii mooy ma maani ci boppam ñu dellu ca cheikh wax ja nan la fa demee وسئل رضي الله عنه عن معنى قولهم معرفة الولي أصعب من معرفة الله dañoo laaj Cheikhu Tidiane ne ko wax ji yàlla yi di wax ne maarifatul waliyi xam waliyu moo gën a jafe xam yàlla moo gën a jafe xam yàlla euh, loolu nan nan lañ koy déggee فأجاب رضي الله عنه بقوله أما قول سائل معرفة الولي أصعب من معرفة النبي من وح جنب كي وحنه خم ولي مو غن جفه خم يالا نين يبينه قول أبي العباس المرسي وخي أبو العباس المرسي جموك ليرا وخم جموي لن من لو كشف عن حقيقة الولي لعبد وح جم وحنه بنو كشفون دق دق نتو يالكي دسكوي توبو موالا شعراني وخ لا اطيع دي سو دو كين دوكو موي لومو واخ دنج كوي ديف كين دو كين دو ووتك موم وحقيقه الولي انه يسلب من جميع الصفات البشريه موني حقيقه ولي بي ديس كوي سلبو مانام ديس ديندي سي موم لب lépp luy lépp luy jikkoy doomu aadama dañ koy dind ci nit ki jikkoy doomu aadama moom soxor ca la bokk kon day dañ ci waliyu bi iñaan loolu lañuy tuddee ak sifaatul bashariya mooy sifaat yi nga xam ne yàlla daf ko mooñaaleeg doomu aadama bu dañee ci moom nag ba mu jeex tàkk wa yataxallaa bil axlaaqil ilaahiya mu daati jikkoo làmboo jikkoy yàlla yi zahiran wa baatinan biir ak biti nan lay làmboo euh, jikko yàlla yi biir ak biti mooy lépp loo xam ne jikko ju baax la yàlla xam nga amul ay soxar lu nekk ci yàlla lu safaan amul doomu aadama moo am safaan ak lu baax yàlla moom mooy dindi li bon insérer ci moom jikko yi nga xam ne moom ca yàlla lay bawoo mooy jikko yi wali jikko yooyu lay sàll lay sàlloo jikko yooyu nag yonent bi lañ ci sàll lañ la yàlla taw ci moom loola ba mu fees dell moo tax mu ne ko wa innaka laalaa xuluqin azim jikko yi am ci doomu aadama yu bon yépp amul benn amu ci ci yonent bi yonent du soxor yonent du iñaan yonent du du du du hmm? tuddee ak sifaat bashariya mooy jikko yi ñaaw ci doomu aadama te yàlla mooñaale koog moom yooyu la nit yàlla di dindi ci E, waliyu loola mooy dañ ci moom loola bu dañoo ci moom mu sàlloo ci di ko jikko yàlla yi ànd ak loolu lépp nag bu ko sàlloo nag danaan tekk nag kenn du xam ci moom dara mu ne nag kon maarifa kon fii ñëwul pour firi law ko si fa de dafa ñëw di firi maarifatul waliyi asaabu min maarifati nabi min maarifatillah mu ne wa qawlul qaa'ili wa qawlu saa'ili mu ne waxu aji wax ji wax ne maarifatul wali asaabu min maarifatillah maanaahu loolu li muy tekki mooy xam wali yu moo gën a jafe mooy lan mooy ndax anna allaha taala maarufun bi sifaati kamaalihi yàlla dees koo xam ci jikkoom yu mat yi yàlla kenn du laam-laam yàlla di ko xaw a méngaleeg mi def yooyu yàlla moom dañoo xam ak matam ba noppi ñu xam ne moom yàlla muxaalifun li jamii xalqihi fi jamii awsaafihi yàlla dafa wuute ak mindiif yépp ci bépp jikkoom waya bayyi na loolu lu leer nañ la kon loolu kenn du ci werante waaye wali yu nag mu ne amma maarifatul wali yi maarifatul wali yi eh, eh, bisifaat yi nga xam ne bisifaati lati yakunu biha waliyan fa innaha baatinatun fii laa tuaraf jikko yi tax nit ki nekk waliyu loolu feeñul baatin la moo tax waliyu kenn mënul mënul gis nit ne diw waliyu la diw mi waliyu diw mi waliyu diw mi waliyu la ndax lay tax mu nekk waliyu loolu ay jikko la yu yàlla def ci moom jikko ja nag baatinu ci moom dafa biiru ci moom kenn du ko xam loolu loolu ko kon nan ngay ràññeewee waliyu sax ak keneen موتاخ مون لا لان ظاهره مستو مع ظاهر غير الاولياء داخ ابارانس نيتو يالا اك ابارانس كينن نيويم سو غيس وا ليغي الحاج مالك متخاو ني اك مالك مباي بوله متخاو ني دا فا ام دا فا ام ديفيرانس ام داغي خول ني كي بن بالا كي ابجن لا مي دو واخ موك ني كي وليو لا كي دو وليو nga xiyaas ko ci seen seen dedet am na yu woo xam ne gis da koy xeeb lool te nitu yàlla bu mag a mag la am na ku néewi néewi sagar lool daanaka di sol sol yu woyof te nitu yàlla ku mag la e, kon nag kenn mënta xàmmee sax nitu yàlla ak ku dul nitu yàlla nit ñaari nit ñu taxaw mënoo xam kii mooy nitu yàlla kii du nitu yàlla mënoo ko xam kon kee nga xam ne nag moom danga koo jàppoon nitu simple su la yàlla woonoon xaqiqaam <laughs> sëñ bi lu mu la wax nga def ko am na koy wër jàpp ne moo raw ci àdduna te kii ngay romb nii di ko fëlëxee di kajj ay tànkam kookoo raw sa sëriñ yow moo gën a kawe sa sëriñ foofu léegi kon kooko soo xamoon xaqiiqaam nooy def danga ko romb di ko xeeb ak di ko xeelu ak di ko nàngam te nga xam ne moo raw sa sëriñ yow yaa ko xamul rek kon law kushifa an xaqiqatil wali la ubida bu leen ñu fontoor la ubida nag du mooy dañ koy jaamu Sha'raani wax na ne la utiya mu ne zaahiru nitu yàlla ki ak zaahiru keneen ku dul nitu yàlla ñoo tolloo mënoo leen a xool ci seen kanam ba xam ne kii moom egg na ca nga sàngam wala àggu <laughs> yàlla la koy won rek yàlla nag bu la wonee li ci biir nit ki dëgg-dëgg li muy dëgg-dëgg nit kooku sëñ bi danga wax leneen lu dul di ko xeeb ak di ko def ko def ko nit simple waaye danga xam ne kii ku yàlla di xool la ku yàlla ku yàlla topp la ku yàlla bëgg la ku yàlla eh, da xam ne kii du du ña xamul yonent bi nag ñoom lu nekk danañ ko ko teg danañ ko dóor danañ ko bañ danañ ko nangam waaye ña xam xaqiqa yonent ba nag ñoom Abubakar ne Siddiq ñoom Ali yi ñoom Abi Talib ñoom Usmaan ñoom Umar ibn Xattaab ñooñ duñ weccoo waxu yonent bi looru yonent bi sax duñ ko weccoo leneen lan moo tax yonent bi bu dee tëf gaa yi capté ko raaxoo ko <laughs> dañoo xam kan mooy yonent bi yàlla wan na leen kan mooy yonent bi yéeféeri màkka bu yonent bi tëf li woon danañ ko kii ndax ñoom kuñ ci woon xaqiqa xab yonent bi nga nga nga tuub ci saa si noonu la nitu yàlla ki mel nag ki ko bañ ak di ko bañ moom xamul kuy kuy waliyu bi dafa gis benn nit rek nit kuy lekk di naan di nangam ndax loolu la cheikh wax cheikh def ne alwaliyu lam yatamayaz an gayril awliya min jinsihi ñi mu bokkal bindinu doomu aadama amul kenn ku mu ràññeeku ci ci bindam maanaam wali yu nga boo gisee wali yu dafay leer wala kanam wala sikki bi day gudd wala day day wala nag déedéet loolu amul amul wali lu muy ràññeekoo du col du doxin du mbaxana du dara moog nit ñëpp ñooy yem ci bindin ba pare muy ànd ak ñëpp shaarakahum fi jamii xarakaatihim wa sakanaatihim <laughs> day dox waliyu day waaxu waliyu day mar di lek di nan di sëy di am ay soxla ci àdduna di am keur di am auto di soli mbazé di sol kos lépp lay def lan mooy legui nak kooka nga gis mu sol ab costume nak di dox di dox di liggey te nek nitu yàlla ku mag di fanane julli yàlla sopp ko lol mu sopp yàlla yuhibbuhum wa yuhibbunahu téewul nak yow yang ko xeb lol suñ la kashfu won haqiqa koko est-ce da nga gisati di xool costume wala ngay xool cravate bi mu takk wala naan dafa bëgg àdduna mbasin yu riche yi mi sol wala nangam wala nangam dootoo ko waxati la utia la ubida da ngay sukk ci buntam di di ko tërbiyu ndax lan léegi xam nga xaqiqam bu leen ñu fontoo wax ji lu ci lent amu fi lu ñuy jaamu keneen ku dul yàlla anamu euh, mu ne falida saubat maarifatuhu allati tumayisuhu min abnaai jinsihi cheikh ne looloo tax xam wali jafe ndax mënoo koo xam-xam goo xam ne daf koy koy eh, ràññee ak ñi mu bokkal jamono ñi mu dëkkal ci doomu aadama yi moo tax ñu waxoon ne maarifatul wali asaabu min maarifatillah ndax yàlla moom leer na ay mbiram waaye waliyu nag moom dafa jaxasoo dafa jaxasoo ñi nga xam ne bokkuñu moom comme yonent bi ni mu juddoo màkk jaxasoo ak waa màkk yaroondoog ñoom <laughs> ba pare xaqiqa bokkut ak ñoom ku ci xam luy dëgg-dëgg yonent bi nag doo fa nekk naan maa ko mag ak ñoo doon fowandoog ñoo fu balandoog koo xam ne nag yàlla wonu la ci moom dara da koy jàppee benn booy bu dëkk fii ci jàddu koñ bi Abdalaay baayam Amina yaayam bu ñu fonto ah. yow mooy yow xamoo xaqiqatu nit ki moo tax mu ne fii la cheikh waxee nag mu ne wa maana qawlihi law kushifa an xaqiqati alwaliyi la ubida لأن أوصافه من أوصاف إلهه ونعوته من نعوته mu ne wax jooju Abul Abbas wax ne su fekkee ne Eh, dañoo kashfu dëggi dëggi nitu yàlla ki dees koy jaamu ndax jikkoom ya ci jikkoy yàllaam yàlla subhaanahu la jóge yàllaa ko yàllaa ko branché eh, eh, def ko tëbb ko ay jikko yu rafet ay axlaaq ilaahiya cheikh ne li annahu yansalixu min jamii min jamii al awsaaf al bashariya yansalixu min jamii al awsaaf al ndax moom nitu yàlla ki dafay summeeku ci lépp luy jikkoy doomu aadama awsaaf nag du melokaan ñuulaay beeg rafetaay beeg loolu kenn mënu cee summeeku di yenn salixu an jamii awsaaf jikko yi nekk ci doomu aadama te doomu aadama bu nekk bëgg nga loolu dañ ci yow jikko yooye mooy dañ ci wali yu ba set wecc kama tansalixu shaatu min jildiha comme ni nga xam ne noonu la aw bëy ñu koy fees ba derwa tàggali koo tege nee bëy wi tege nee noonu la nit ki di setee ci bépp jikko boo xam ne jikkub doomu aadama la boo xam ne yàlla da ko mooñaal doomu aadama doomu aadama day soxor doomu aadama day nangam day nit ki nag day dem ba génn foofu loolu la tuddee alfana loolu mooy jeex da ngay génn ci jikkoy doomu aadama da ngay génn ci jikkoy doomu aadama sa bëgg-bëgg bi nga bëgg àdduna ak bëgg leneen ak bëgg nangam yow da ngay génn ci loolu lépp kenn lenn rek ngay bëgg muy yàlla subhanahu wa taala lenn rek mooy sa jubluwaay muy yàlla yow xamoo àdduna xamoo safara xamoo yépp da ngay génn tege ne yow yàlla kese kese kese kese mooy sa mbir moom la ñor moo la ñor kooku nag ki àgg foofu nag kooku xaqiqaam ak na muy doxee ak baatinam dëgg-dëgg kooku nag ku ko xam du la wax dara nga ciy teg baat waaye li tax mu lay wax ngay mer nag li tax nga koy bañ ak di ko contre di ko saaga di bind téere di dal ci kawam mooy xamu xaqiqaam euh, kon fii loolu leer na fi maanaam Ahmed Lo dafay dafay taqale copier coller maanaam daara defu ko manhaj ilmi zéro zéro tey wax maanaam naka nga yow su fekkee ne dangaa dellu ci tabaqaat danga gis ne tabakaat moo wax li anna awsaafahu min awsaafihi wa nuutahu min nuutihi ba pare nga gis ku tafsir la ubida ñu tafsir ko foofu <laughs> mais loo bëggati yépp nga dagg ko ba pare jël li nga xam ne ca waxu waaja la bokk nga ne cheikh ko taaliq soo ñëwee fii cheikh day wax loolu ba pare door a indi taaliqam taaliqam mooy lan xaqiqatul wali day insilaax dafay summeeku ci jikkoy doomu aadama yi daati ràngoo jikkoy yàlla wax nañ jikkoy yàlla du caagee ni mooy da ngay ràngoo bind ak dogal ak nangam déedéet lépp loo xam ne ay axlaaq xamida la yàllaa ko feese yàllaa feesal yonent bi ba mu fees dell mu ne ko wa innaka la ala xuluqi azim yonent bi jikko yu mu am benn du ci jikkoy doomu aadama loolu ci yàlla la bawoo ndax yonent bi bu amoon jikkoy doomu aadama kon danañ wax ne yonent bi dafa iñaan iñaan dana dana mën naa nekk ci moom wala soxor mën naa nekk ci moom wala yonent bi mën naa rëy <laughs> yooyu yëpp mënta nekk te loolu jikkoy doomu aadama la ñun ñëpp ku nekk am nga ci dara léeg la ñu wax la dara nga funki di merte yàlla taxul koku yonent du ko def du mosa merte yalla taxul wala dañ ko saga mom mu dati mer lutax tax mu may saaga fu yonent mere yalla tax lu muy dox yalla tax ikhlas gu set wetch gu raxul dara te tidiane waxon na ne borom fataxu rek moy dem ba ag fofu manam nit ki faaw mu set ci jikkoy doom adam pour meuna def te yalla tax sax leneen def ana amna lu cey yu cey rax léegi nag loolu la cheikh wax loolu mooy summeeku gi muy summeeku loolu mooy commentaire u cheikh waaye li anna awsaafahu min awsaafihi wa nuudahu min nuudihi loolu waxu abul abbas il la te boo demee ci tabaqaat noona nga ko fa fekkee kii dafa liir tabaqaat wala liiru ko léegi nag loolu ci tasawuf loolu lay tuddee alfana alfana suuf yi soo koy dégg mooy nit ki ni muy yéegee ba jeex tàkk ci jikko doomu aadama yooyu ràngoo jikkoy yàlla rek yàlla kese kese kese mooy nekk ci moom maanaam léppam day nekk yàlla moom la si Ebaas doon wax ne booy wut di wut ba yàlla wan la waaja sëriñ bi dëgg-dëgg meloom ya mat faaw mu am ay melo yu mat sëkk nga xam ne kii sa xaajo léppam di yàlla soxlawul lu yàlla maanaam soxlawul lu dul yàlla te faalewul leneen lu nekkul yàlla <laughs> mais kii bariwul kii képp ku àgg foofu mooy dañ nga ci jikko doomu aadama léppam di yàlla soxlawul lu yàlla te faalewul leneen lu nekkul yàlla boo ko gisee mbaa sax nga dégg doom sa xol ba fees dell ci yàlla nga di luum dégg sëriñu tey koo ci déglu woon da koy dégg rek sa xel sa xel mi yépp nekk ci yàlla ak alaaxira déedéet <laughs> sëriñ sëriñ sëriñ business sëriñ oto sëriñ nàngam sëriñ nàngam nga xam ne bu ñu waxee doo sentir benn yàlla nit ki waliyu bi su waxee wala mu digal la wala mu nàngam da ngay maanaam ak yàlla gu fees dell ci xolam mi ngi mel ne ngay déglu sëriñ su mag si fi nekkoon ñoom ñuy waxtaan ci wàllu yàlla da ngay daanu xaal sa lépp yàlla lay doon boo ko jisee mbaa sax nga dégg kàddoom sa xol ba fees dell ci yàlla nga di luum sëñ Abbas yamul ci loolu mu ne te benn xoolinam day fàtteloo xol àdduna ak mbiram yépp doo ko tal benn xool mu lay xool rek wala nga ko nekk jàkk rek sa xol bi yépp àdduna def ciy génn daanaka yow yàlla kese moo lay dugg ci saa si maanaam sa lépp day nekk yàlla doo xalaat àdduna doo xalaat den doo xalaat yaa ngi xalaat yu bare bare bari ci sa wàllu yàlla sëriñ mat sëriñ nii lay nii lay mel kooku nag ki ko man a mel mooy ki nga xam ne dafa génn ci jikko doomu aadama yi dañuy génn ci di koy doomu waaye yow nga am sëriñ boo xam ne xam nga ne sëriñ bii xale bu rafet bii dagal ci koñ bii sëriñ bee koy kepp xam nga lool maanaam jimmi nga xam ne kii lépp luy jikkoy doomu aadama ay fo caaxaan e, bëre e, maanaam lépp képp ku bokk ci àdduna sax ku bokk ci ak caaxaan doo gis sëñ bi mu mu mu mu jàppante ak moom abadan al alhaji mari dafa am ku ñewoon ñu indi ko ne ko kii de am mbër la dam dañoo bëgg nga ñaanal ko pour wax la wali yu bu waxee ak yow rek da ngay defaru ci saasi cheikh alhaji bal ne ko da ngay bëre mu ne ko waaw mu ne ko tee ngaa bëre ci yàlla tee bëre ci yàlla bis boobu la mbër ma gëjë bayi, bëre boobu la bàyyi boobu la bàyyi bëre di tër bi yu nekk taalibi ci kër gi tee ngaa bëre ci yàlla mu nekk taalibe ñu koy eh, ba mu nekk nit bokk ci nit ñu baax ñi lan moo ko def mooy waxu nitu yàlla dafay feesal xel xol ak xel yépp ci yàlla waxam bi rek daf koo wax dara rek ci saasi am na benn waaye mi ngi dund doomam yépp samay xarit lañ moom sama xarit la bëgguma tudd turam mi dëkk Louga taalibi si ebaas la bëkku néegu si ebaas la bëre la daan def si ebaas moo ko wax tax mu bàyyi bëre ba ci saasi bokk ci ñi dàq jaamu yàlla guddi nag te loolu bu dul woon bu dul woon li mu dajeeg sëriñ bu mat sëriñ yooyu yëpp du ko mën sëriñ bu mat sëriñ du caaxaan du ànd ak koy caaxaan xamul sax lu jëm ci caaxaan li mu xam rek mooy yàlla ku mu jàpp sa ci yàlla lay jëme ci saasi ci yàlla la lay jëme ci saasi loolu am nañ ci ay xisa yu bare bari ci nitu yàlla yi waxtu wi du waxu nettali ko du waxtu nettali ko waaye loolu mooy ki fanaawu ci jikko yàlla yi jeex tàkk ci jikko doomu aadama tege ko ne le loolu nag buñ koy wax du mooy dangay ngay fanaawu du da fanaawu ci ay jikko yoo xam ne Eh, sa ñaaway wala sa rafetaay sa nangam mooy ngay teg ne dem jikkoo yàlla ñu naan yàlla ma nga toog ci ara ne déedéet yooyu waxuñu ko de sa bëgg-bëgg ak sa bànneex ak sa bakkan ak sa yëg-yëg yooyu yépp ngay effacé taxawal lenn rek mooy la yàlla bëgg la yàlla gis la yàlla la la yàlla jëme la la yàlla digal loolu kese kese kese su boobaa suufi bi dafay jikkowoo jikkoy yàlla subhaanahu wa taala su ko defee lépp luy yëngatoom lépp luy waxam lépp luy kiwam dafay méngook yàlla dafay méngook ni yàlla bëgg moom la euh, Junayd di doon firee tasawuf naan muwaafaqatul xaq méngoog yàlla ci la mu bëgg cent